su ko defee ci biir loolu am na yu nit di weddi ngir jamono wante kenn sañu ko weddi te moo di am na nit yàlla yi ñuy tudde ay yonent walla ñu di leen tudde ay aqtaab lañu mën dégg keneen du ko mën dégg mënul nekk waaye yépp ci coobare yàlla ndax euh, li Sidil Hajj Malik daan wax yonent yi ñoo nu gën d'accord nan ci waaye nanu d'accord it ci ni ñoo nu gën ngir coobare yàlla waaw delloo yépp ci yàlla yonent yi liñ nuy gën yépp coobare yàlla lañ nu gën waaw su ko defee li ñu wax ci tawil tudd nañ ci iblis ñu rëbb ko taawilam baaxul ndax daf ni yàlla daf ko jënde aadama waaw kooku du teggin te Sidil Haj Malik nee na jaamu yàlla mën na yóbbu jaamu yàlla àjjana nee na jaamu yàlla mën na yóbbu jaamu yàlla aljanna wante nee na mënul fexe ba jaamu yàlla jegeñ yàlla ndax àjjana sorewul te yàlla dafa sore moo tax jaamu yàlla mën na yóbbu jaamu yàlla aljanna waaye mënul fexe mënul tax mu jege yàlla waaw li mën a tax nit jege yàlla mooy teggin mooy teggin te mag ñi nag teggi na leen gënal aljanna parce que seen jom ak seen taxawaay àgg na fu nga xam ni bu leen yàlla yóbbu woon safara ñu ubbi fa seen daara di jàngale amul benn werante su ko defee abraha ba muy tojji kaaba ga tawil bu jubadee tax bu fi kaaba gi nekkee du ma siiw kooku jubul te du teggin kooku jubul te du teggin moo tax yàlla écrasé ko mook armée mi yépp et pourtant Hajjaj ibn Yusuf jël na catapulte bombardé Kaaba gi ba mu toj te kenn attewu ko ni ñu attee Abraha lu tax taawil bombardé na kaaba gi ba mu toj te kenn condamné wu ko ndax taawil ndax mooy digganteem ak Abdullah ibnu Zubayr abadi la yépp sax ndax dañu wax ni koo dàq ba mu dugg ci kaaba gi mucc na may ko jàmm waaye nag am lu xajaaj ragal mooy bu ko ñépp xamee ku ne nekk tooñkat ndax ku ñu dàq nga daw dugg ci kaaba gi ni mucc na te kom moom lañu dénkoon polisu lislaam nag mu bëgg a wone na lislaam toll bàyyi ba abadile yi daw làqu ji ca biir kaaba ga mu jël catapulte bombardé ko yàlla xam ni yàqu yàqu bu ëpp lay dogale moo tax kenn condamné newu ko